ñoom ñëpp kontante la ñu fësal yile militant alliance pour la république dajale woon buntu siège APR bi nekk ci Parcelles Assainies ngir fësal seenu mbégte ci tànn bi nga xam ne président Macky Sall tànn na ko Amadou Ba. mu ay jeunes Amadou Ba lañ mais des jeunes du président de la république Macky donc sentiment de satisfaction et de fierté totale moom la ñu am. ñoom ñu jàpp ni tànneef bi du lu leen bett ndax lu ñu xaarandi woon la. leeroon na ma man président Macky Sall lu tax. yar bi tey bi Amadou Ba amul ak problème kenn. ñu ngi taxaw temm président Macky fu mu joxoñ ñun foofu la ñu joxoñ lu mu wax loolu ñu wax. président Macky Sall tànn na profil bu gën bu ñu sukkandikoo ci ñoom. choix jàpp naa ni Amadou Ba mooy ki gën ndax tey na yaru na. pour xam na ni état di doxee te itam maîtrise na dossier état bu baax. connaît, qui maîtrise les dossiers de l'État. ñuy woo responsable yi nekk APR yëpp ngir ñu booloo mën a gunge Amadou Ba. bu ne woon Macky Sall nga doon déglu tey choisir na tout le monde a l'obligation ñu ñëw ranger wu ci ginnaaw choix boobu noonu pour l'intérêt suprême de la nation sénégalaise. amul découragement ñoom bu dee Macky Sall moo tax ñuy liggéey Macky moo leen tax jóg Macky ñoo tax ñuy reyante Macky bu tegee nit ki ne topp si ginnaaw ne topp si ginnaaw.